mettait en allant voir. Depuis que nous ministre des Transports terrestres. Et du transport aérien. Il y a eu dans ce pays plus de 20 morts. Et mm. il fallait mettre le Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui ont été Il fallait mettre le Hmm. C'est vrai. C'est vrai. te moom yàlla dafa def. Mhm. moom moo nekkoon porte parole Pastef. Mhm. yàlla dafa def dafa amoon page Facebook. Mhm. te moom moo bindoon ci page Facebook am ne. ba accident yi takkar naa see biir Sénégal. que Mansour Faye dafa war a démissionner. andil jox su ko président mënul andi sama café gi. gaa yi ah. ma damay naan café Touba. parce que waxtu bii la ko Serigne Saliou Mbacke digle woon. waaw ah, macha allah si 17h bi. Serigne Saliou Mbacke yàlla nañu yàlla taas si barkeem. amiin taas ñu si leeram heure bii la digle woon ñuy naan café Touba. Mhm. du dëgg bàyyi TikTok. <laughs> non parce que dañ li may wax dañ ma naan xanaa man gëw ma yàlla. ah man ka loolu ma jaaxal ba muy wax Mansour Faye dafa war a démissionné. Mm. xanaa moom gëmuloon yàlla. Ah, El Malick Ndiaye ba muy wax Mansour président dafa war a dàq Mansour Faye ndax accident yu bari yi xanaa moom gëmuloon yàlla. Ah, léegi da nga koy topp ci ay waxam waxu démbam. waaw waxu démbam da ko dab tey. jarul nga ko ciy topp nag. te yàlla dafa def nag. Hmm. moom moo wuutu Mansour Faye ci poste de responsabilité bi. dëgg la kon Mansour fay moo ko boppa ah. dëgg la kon ah su démissionné wul. Hmm. na génn baalu ak Mansour fay ci wax ji mu ko waxoon. Hmm. su démissionné wul. Ah. na génn baalu àq Mansour Faye ci kaddu yu ñaaw yi mu ko waxoon. Mhm. kaddu yu tegginiwul yi mu ko waxoon. Mhm. parce que nit ñaa ngi naan xanaa man gëwuma ma yàlla parce que accident c'est pas de la dimension personnelle. Mhm. si am na foo xamante ni responsabilité am la xam nga lu tax. l'avion bi daanu Air Sénégal c'est de la responsabilité directe du ministre. mais du moom moo ko moo ko causé. non defal ndànk. c'est normal que mooy njiit. accident yii accident yii nii. waaw accident yii am. waaw du mbirum état c'est des privés mais l'accident de l'avion c'est de la responsabilité directe du ministre des transports terrestres et du transport aérien des infrastructures et du transport aérien Fouf responsabilité là. ah mais warul yem ci trans parce que ay sanction la. waa sanctionné ay sanctionné. Mhm. suñuy sanctionné. mais teg na ay jéego. non dama ne. accident su su ko sañoon du am. dama ne waaw kon nag. waru mais bu xëyee am kon nag waru woon wax loolu la 11 janvier 2023 njuumte la. kon na génn tuub ne dafa dafa juum. doyen xoolal bàyyi sa xel bi nga fooy chaque jour yow mii nga ne ko kon na génn tuub ne dafa juum. na génn taxaw na bindaat ci page Facebook am ne Mansour Faye baal ma yaa ma ëpp bopp. parce que dafa juum. c'est pas une moo ko taxoon di wax yooyu. na bu dee politique la kenn ko topp ci dara. du dëgg. Mhm. politique. Mhm. moo tax mu moo taxoon mu wax yooyu malheureusement tey yàlla jox na leen. Mhm. parce que li ci gën a garaaw. mooy. même doomu aadama boobu. moo doon wax ni BRT bi du priorité. Mm. BRT bii ak TER du priorité pour Sénégal. ñu ngi indi embouteillage tey de mooy tàgg BRT bi. waaw ñu ngi parce que moo ko war a lancé la quinze 15 ban le 15 bii gannaaw suba. Hmm. te ñoom dañu bindoon ni tey tey tey la doo ko waroon la ñoo ko war a lancé la quinze hmm. BRT bi nga xam ne dañ doon wax ni du priorité pour Sénégal moom yàlla def na ni moom mi doon wax ni du priorité hmm. moom mooy bind ci page Facebook am di tàgg BRT bi. ku gis embouteillage bu metti bi nga xam ne BRT baax na fi. ku bis embouteillage bu metti bii nga xam ne teer baax na fi. waaye embouteillage BRT bi dama ne. BRT bi am embouteillage xam nga lan la su nit ñi respecté rek embouteillage du ànd ci mais ñoom ñi nga xam ne ñoo doon wax ni bi baaxul. Mhm. ñoom ñooy wëlbatiku di tagg BRT bi. parce que ñoo mhm. ko war a lancer les travaux yàlla dafa dogal nii Macky Sall moo ko réaliser. Mhm. inauguré ko mais ñoom ñoo war a lancer ñu jël population ba pare. tarif yi Macky Sall la ko fixé. du ñoom. moo fixé 500 francs de Guédiawaye à Petersen. à Petersen fixé 300 francs ci diggante yi ce n'est pas 400 francs c'est 300 francs Macky Sall moo fixé tarif yi. mais est-ce que BRT bi amul dara. mais est-ce que mënu woon gën a wàññeeku. dama né mën na gën a wàññeeku mais fi mu ne pour l'instant il faut ñu dem ci lolu. Mhm. amul dara luñ def ci BRT bi Ñom li ñu ñom ñoom suñu sañoon BRT bi day tak. mais assainissement parce que ñoom seen andi wul benn problème assainissement. Mhm. andiwul benn problème accident VDN andi nii. amul be nga ne tata bi dafa diri. Euh, jakarta beeg dafa fekk jag dafa diri ah, jakarta bi tricycle bi ak kii bi. léegi nag ak taxi bi. léegi nag xam nga lu mu war a andi. Mm-hmm. permis à point. au delà du permis à point. quoi alors. le transport de ces jakarta là et des tricycles dans mm-hmm. Dakar. Mm-hmm. c'est vrai manque de courage politique. moo tax président Macky Sall bàyyi leen woon ñu dox. mais le malheur mooy ñi doon dawal Jakarta yëpp waa Pastef la ñu voteel Bassirou Diomaye la ñu tey ku bëgg am fulla ak fayda Bassirou ki nu mu tuddati Birame Souleye Diop xam nga déedéet nu mu tuddati El Malick Ndiaye xam mhm. mooy arrêté Jakarta yii di daw ci biir Dakar. du yomb de. parce que Dakar transport motocycliste daf ci warul am. Mhm. livraison de marchandise mën na am mais transport motocycliste ci capital. Mhm. waru ci am. te foofu laa koy xaar. Mm-hmm. dina ci ñëw. xaaruma ko feneen. Mm-hmm. parce que suñ ko continuer moor yi dina gëna bari ci tali bi. Mm-hmm. parce que duñu ñu dara. ñom ak borom tata yi duñu ñu dara ñom ak taximaan yi. parce que pour ñoom jakarta yi ñoo yak seen liggéey. donc pour régler cette question là il faut ñu demee noonu. sama gars ma ngi leen di ziar ma ngi naan amin ci ñaan yi. <laughs> ba tey bàyyiwul maa ngi naan amin ci ñaan yi mhm. l' importance mooy nañ may ñaanal rek man loolu laa bëgg nañ may ñaanal saa su ne rek ma leen koy ma naan amin ñu lay ñaanal ñu ngi toog di la seetaan xam nga ku ku ku taxaw bëgg ñu taal ba Dakar BRT ku mhm. taxaw bëgg taal teer ku taxaw bëgg yàq BRT mhm. jël saccagé ko ba taal ko tey ñoom ñooy wëlbatiku di protéger BRT bi kon gàcca nga laa ma président de la République Macky Sall moom mi xalaat BRT def ko biir Sénégal mm. parce que su fi BRT wa waa Géejawaay suñu naree dem Petersen dina metti trop. est-ce que moo ko xalaat. moo ko ko bind ko. et Aliou Sall dans tout ça. Aliou Sall man. mais ex-maire de la ville de Guédiawaye. mais attends <laughs> le président de la République c'est lui qui définit la politique de la nation. Hmm. le président de la République Macky Sall c'est lui qui définit la politique de la nation fi mu ne nii lépp lu ñuy doxal Sénégal ba 2026 Macky Sall moo ko xalaat Kep. ko. amul kenen ku ci rax waaye loolu nag day yomb torop loolu mënul nekk. loolu mooy benn. beneen bi de amul beneen de loolu moo mënul nekk moom. ma wax sénégalais yi ah, ne leen. waaw benn nit kese bëgg a tëgg lépp. dama ne lépp lu ñuy doxal. Sénégal les ministres conseil li ñuy jëriñ. non dama ne lépp lu ñuy xalaat lépp lu ñuy dox. parce que nag c' est le président de la qui définit la politique de la nation. Ah, loolu dëgg la loolu la dëgg la loolu nit mënu ko dindi. Hmm. Sénégal de lépp lu fiy dox ba 2026 ba laal 2027 PAP 3 la tudd Macky Sall la koy doxal.